لا شك أن الله تعالى إذا أراد أن يجعله رسالته في صاص يده إهدادا قاملا يغيس بين الأنا أمون سكنا يا الله سنمي ينغيس فاسال دجام دفك يواجل واشاي لمت ينمو من دند شبير نيني ولكن بأخلاقيات راقية تلفد أنظار جميع المراقبين وحاسة زوي البصرة منهم wàccaay loolu nag day ànd ak ay jikko yu kawe nga xam ni seetlukat yépp dañuy bàyyi kooka xel rawatina borom gis-gis yi walisa yuqaalu anna annabiya sal allahu alayhi wa sallam min alaamati sidqihi maa yusamma bi irhasaatin wa muhjisaatin wa tanabbuwaat wax nañ ne ñett yi mooy tax ñu xam ne ne kii yonente la muy irhaasaat muhjisaat ak tanabbuwaat irhaasaat mooy ngay def lu yéeme balaa ngay woote muhjizaat mooy ngay def ay kéemaan soo wootee ba pare tanabu aat nag mooy ngay wax ay xibaar yoo xam ne ñëwagul nga wax ne ne dina am wa hakaza kaana al amru maa imaamillaahi al mahdi sallallahu alayhi wa sallam ñett yi yëpp nag sunu yonente seydina imaamullaahi alayhi salaatu wa salaam dund na ko اشتهر بالاستقامة والقرم وسرعة الإجابة والشجاعة والأمانة قبل البصر ñun ñëpp xam nañ ne Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam ku siiwe woon la si njub dafa baaxoon dafa nangu woon ak ñaan dafa jàmbaare woon ku wóoroon la te lii lépp mu ngi am avant muy woote wa lihaza lam yunqirhu ahadan lama qaala li xaalihi xiina talaba minhu jam al axtaabi fa rajaa xaaliya dayni qaa'ila kayfa aqtamu ashjaaran tuxayini wa tasjudu li فلم يشق alxaalu في الحبر لانه كان صدوقا اكزامبل exemple لين دي جوخ موي كين mooy نون ci ñun réerewul koroog ba ko weejuram wa yónni na ko nga goral lima ma ay mat seydinaa limaamu alayhi salaatu wasalaam dem ñëw àndiwul dara yor loxoy kesse weejuram mu ne ko waaye yow limam aw anama tayama la yónni woon mu ne ko man mënumaa gor ay garab ndaxte ka ma sujub rek unuyuma ma ma weejuram moo xam ne ni kii li muy wax dëgg la lii mooy irhaasaan wa amma muhjizaatuhu baxdal qissati kama yaqulu qaatibu sira acheikh muxtaar loo fii kitaabi aksaru min amwaajil bihaar bu ñuy seen nag mujizaatu seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi mu wootee ba pare comme ni ko bindkatam bu mag boobu waxee muy cheikh muxtaar loo ci téeram boobu ñuy wax bu char muhibbin nee na moo gën a bari duusi géej kon kii mujjizaatam kenn xamul nu mu toll amma tanabbu'aatihi fa kasiratun wa minha zuhuru shaabin aw sansiyatin yusamma abdullahi yash'alu llahi ala aatiqihi mahama dashi nahwati lmahdiyati fi shatta almahmud bu ñuy xool nag yi mu ñu waxoon ne dina am te ñëwagul woon yu baree bari la waaye nag bokk na ci benn personnalité bu ñuy wax abdullahi nga xam ni maamam moo ko joxoñoon nañu Abdoulahi de yàlla dina teg ci kawam responsabilité bu mag a mag mooy siiwal sama woote ci mboolem gox yi intazara wilaadahu waaliduhu sayduna isa allazi fariha kasiran lama bushira lahu bi milaadihi ñépp nag di ko xaar rawatina nag weejuram wa maam seydi koroog ba ñu ñëwee naka sa doom ba ñëw na koroog maam seydi bég na mbégte moo xam ne ku ko jege rek yëg nga mbégte moom وعليه سد وعليه سيد عبد الله علامة من علامات صدق نبوة إمام الله المهدي كون دي ني ورا خام موي سيد عبد الله دال مانغار لا بوي دغل ني الامام يالا كو يوني قال جده عليه السلام بان والده سيغلفه في تبليغ الدعوه فكان الامر كما وعد مون دي مامام جو تجد سيدنا الامام عليه السلام moo joxoñoon baayam Seydina Isa ne li may woote su matulee Isa mii moo koy mottale te ñu ko waxe woon noonu la amee wa ashaara bi dawrihi fi nashri dahwa fa shahida lahu ljamiu zalik te joxoñoon baayam ne moo may wuuti sama woote bi moo ñu joxoñaatu rëru Chérif Abdoulahi ne mooy siiwal sama woote ci mboolem gox yi te ñu ñépp seede nañ ne loolu am na السؤال المطروح من هو الشريف عبد الله المشار إليه هل نجع في محمد بون بوكي لي مالين دي لاج موي انا كان موي شريف عبد الله مينو مامام جوخني مو ndax mom sax mission biñ ko joxone réussir nako هو الموت اخ لو مانا خيو رك تي لا نيو ديغون ابن سيدنا عيسى وصحنا غان موي دومي مام سيدي جي احمان غان تربى في كنف والده الذي لقنه تربية من ينتظر منه حمل لوال عظيم كيلا بايم ير وجل كنك واشاي لمر غير ممن يندرا فوق مقبل طوانه والده تكوين رجال الله في الاستقامة والإفة وحب الله وأهله وطموح إلى المعالي والهمم المعالية وترك السفاس في الأمور مام سيدي سيديك فرمناك nous ñuy former góor yàlla ci lan ci jub ak fegu ak bëgg yàlla bëgg ñooñu yàlla am ay ambition yu kawe waaye am ay mbébét yu kawe te bàyyi détail li yakuna namuzajan lil madrasati al mahdiyati fi taamul ma al bashariya ak ngir lan ngir mu doon royukaay ci école Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam si jëflante ak nit ñi ونشيد دهمتي بالوسائل السلمية أخمي متاس واتبتي أي كاد يرفق نو فيولانس كما لين دوا سحر الليالي في تسليح العلم من منابه الأسير كما دون في قدي دي ساقو حم حم تبرم لوحة يسلي فجمع بين العلم والنور الدراية مبولنا خم خم لير أخم خم تيري واختلط مع العلماء ورجال الدين ودولة بصخصية الحبيب ihtada an bi waalidihi mu jaxasoo woon nag ak boroom xam-xam ya jaxasoo woon ak niti diine waaye jaxasoo woon ak homme d'état ya ci personnalité bu kawe ba loolu nag mu ngi ko doonee sa baayam ba maam Seydi wa fi sanawati al axirati min xayaatihi min xayaati waalidihi badaa yastaidu li xamlin mahaamihi lmanatibi anqihi si at yu mujjee nag ci dundu baayam ci la comme ci la tàmbalee nag di waajal boppam ci mission bi wa baxda iftifaa i waalidihi xamal li an nachali taalimi saydina imamillah daaxila wa xaarijal bilaadi bi fasaxitin wa diplomatie faiqa ginnaaw bi bàyyam laaxoo nag mu commencé nag di tas mission bi ci réew mi ak bitim réew waaye nag ci éloquence ak diplomatie وسنده في ذلك الحليف أمه سيدنا منجل الله وأخوه أبو بكر صديق اللذان أبرى له أن إحتياههما بالدور الذي يقوم به فكان صاحبهما العيم كما رضي وشكر صحيه إخوته وأنا بايم تد ياك جابلون مام جون لاي أك مام بابكر نيوم دنيو بيغون تي ميشون بيالا تك تي كاوم نيو تخاوكو جابلكو gërëm ko sant ko naka noonu ay magam ak rakkam gërëm ko sant ko ak mboolem jullit salaka fi haza manhaja walidihi allazi kaana baytuhu wajhat jamia Chérif Abdoulaye nag soobu na nag sa yoonu baayam ba këram moom ñëppaa fa daan daje layana allahu lahu alqulub wa kaana yuhaatibuha fa yuxsiru fiiha yàlla nag nooyalal ko xol yi su masaan wax rek mu def jeexital وجعل مهامه ليس فقط توصيل رسالة جده ولكن أيضا توصيل رسائل السلف الصالح من أصحاب الطرق الصوفي وأنا الشريف عبد الله مشون يوم علاو كون ريك تي تسوات ماما بي ديديت كيبوكو أم كر دين شريو شريف عبد الله جوتلنا لسا مشوم وبذلك حزي تقديرهم وكان رائدا في هذا الفن بشهادة الجميع lolou nak motax nak ñépp jox ko cër sédel ko lañ ko sédel shakhazahima mashuban wa shabati wa kawana jilan anqazahu min ash-shaytan fi bi'atin barasini shaytaan في بيئة مليئة بإغراءات شيطانية زقى أرواحهم فقان تتوق allazi kana yuslihim daw ñepp دو mo ko nak ci جيغور ak jigen مفرمي أي جنراسيون يو حمني دفلين جلتي لحي الشيطان جي أنفرون ما بو حمني شيطان دف كل بيون مسلل سين خولي بنيوم للين دي فيهل ميزيب الله شريف عبد الله وحد صفوف الأمة المحمدية وأزال فوارق طروق وطبقة عالم السلف في هذا المجال شريف عبد الله مونيو فك خيط محمد تقلكم بوللي tarixa yi tàqalikoo mu dajale leen di appliqué nag seen mboolem jàngale ci fànne bu ne di appliqué nag seen mborom jàngale si fànne bu ne jazaahullahu an il islaami xayra ay waay Cherif Abdoulahi yàlla nañu la yàlla fayal hakaza ancha Cherif Abdoulahi kama ashara jadduhu yanshuru nahja imaamillah في ربوع الوطن بطريقة يلزم إلى الاستماع له جميع المسلمين mbokk yi Chérif Abdoulahi nii la doon dunde di tas woote maamam ci anam boo xam ne ku mu toogal rek dinga ko déglu fa kullu xayaatihi dahwatun ilal manhijil mahdi dundam gépp a tas woote maamam la alla fahum nashfu wa rijal wa nisa fa tax fa axtala fi qulubihim maqaanal aaliya ndaw ñépp nag uti ko ci góor ak jigéen mu am nag ci seen palaas ci seen xol ya palaas bu réeréere يدعو له الجميع عمر نبي الله نوح عليه السلام موتاخ نيب دان تال سين لوخو ديكو نيان نان اي وا يالا يال نغا مي شريف عبد الله اد ياغا مايون يونت يالا نوح متيقنا بان في حالاته صلاه القمه ndax ñoom dañu xamoon ne dundam gépp njariñ la ci xéebi fa shahida lahu najah fi lmuhimmati jamiu lmuslimin ñépp nag seedal فما قول الشيخ عبد العزيز فيه بحاف على أحد ناهيك عن الشيخ عبد الأحد مبكي وأجين تمي سنو ما وخو أب مام عبد العزيز نقولول تكن ما عبد موكا وخو نكا عبد الله فمبولم الإسلام دجيتي تجرو لو قد شريان جمنال نكونونو سنو مام عبد الأحد مبكي نكا عبد الله سما دي أرموار يايدون سمي جابي وبينما نحن في نعمة ما بحياتي جمعنا بي نيو بانيخو الشريف عبد الله أن الملك الموت ملك الموت دال دنيوي بيت محلنا نهاية مهمة جليلة مسقت هاية شريف وقلب عارف بمسؤوليته المهمة وروح عالية وشخصية مليئة بالأنوار والأسرار sama ولكن أنشم الناس بإنسانيته ليبقى wa nañu boroom mission bi mission jeex na mission ba mission ba loxo bu tedd ba yoroon xol bu xam boppam xam boroomam xam responsabilité

من رجال ونساء والشوبان ولم تنصر الأذان تصديق النبع ginnaaw déclaration malakal muuti boobu ñun nag yëgu ñëw yëg rek ñu ne ñu Chérif Abdoulaye génn na àdduna ñu baax ñépp nag dooni njirim ci góor ak jigéen ak ndaw nopp moom bañ na du dégg lool بكت السماء الذي كان تزلوه وهو يؤلي الليل ذكرى أسمان دال الجوي إنك يا الله جوي إنك دال دندل قدي أكتر يالا كما دال تيموي دندل قدي شتر يالا دم وبكت الأرض التي كان يسقيها بذكر الله شفتني دال جوي نكي دال تحاو كي سما di nandal turu yàlla ci sama kaw dem wa baqatil jibaar wal bihaar naka nooy géej daal di jooy doji tamit daal di jooy ولم تسس العيون إلا سب الدموع بغفلة حسنا وتفجعا للفراق من كان يتمئنها rongoñ moom kenn mënu koo téye day sotteeku rek ndax mitit ak njàqare ki ñu daan dëfal suñu nekké ci njàqare mo fi joggé wal walbalsamu lazi qaanu yuwaadi jiraha docteur biñu ñu daan fajal suñuy mettitu xol demna wa fi hadhihi halati zanma faqarna fi lmuhimmad ta situation yu lëndëm yi nak su lañu ñu xelaat mission bu reuy bi mu yoro ولم يسقلنا إلا القول بون bon ñun mënuñu wax Chérif Abdoulaye lu dul أديت الأمانة mission بين لدينكم réussir نغوكو ونصرت الأمة لا يكبير خير وخلفت طرقة كبيرة وثقيلة بايل نغنون دونو لوري لوديس فنيم هنيئا مطمئن البال كون شريف عبد الله نلاول تبول حلات دار insha allah bu soobee sa borom bi la fi andi woon laa taddi al amaana li nu bàyyal du ma sa sàkku ayib taanil anzaari gisatuñu sa jëmm de walakin misluka laa tunsaa waaye duñ a mas a fàtte ndax yow doo ko nuñ fàtte lii rekk moo nu tiis muy weetaay kon soxna ko du weetaay tax ñu